mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xàqate di leen ko baal di ñaan yàlla buur bi sunu borom mu boole ñun ñëpp jéggal ah bu ko defee nag ku gis jotaay bi xam ni am na lu xew ku gis jotaay bi xam ni am na lu nuy waajal ndax ñi ngi ci weer wu ñuy wax safar safar nag buñ ci duggee xel yëpp dana dem ca suñu maam ju baax ju tedd ja Cheikhul Khadim mi nga xam ni mooy borom bis bu rëy boobu moo woote woon bis bu tedd boobu di bisu màggal a ah, bisu màggal nag nekk bis boo nga xam ni dootul bis boo nga xam ni bu ñuy laajte la waxuma ci Sénégal waaye ci àdduna ndax mawsim la ci biir mawsim yi bis la boo nga xam ni am na date fixe boo nga xam ne heure buñ ci dematee danañ xam ne bis bi moom màggal rek moom moo ko moom bis boobu nag moom lañ dëgmal moo waral jotaay bu tedd bi ci seen télévision bu mag bii di Tacko TV leeru xol yi moom lañ war a ñëw waxtaanee tey ay kàddu yu néew rek waxtaanee lan mooy màggal waxtaanee sénégalais yi nan lañ gisee màggal buñ tojee ñaari tomb yooyu dugg ci tukki bi nga xam ni moom la Serigne Touba tukki woon muy tukki bu mag boobu nga xam ne ci la sauvé jaam ñi tukki boobu war nañ cee waxtaan waaye duñ ci waxtaanee suñu xelum bopp moom tukki boobu dañ ciy ànd ak ak xasida goo nga xam ni moom Serigne Touba ci boppam moom moo ko liggéeyal boppam muy ay muy aya sa minnillahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu biya wali ci xasida googu lañu war a dëgg waxtaanee li nga xam ne mooy tukki bi ndax tukki bi kat bëri na ay nettali te ñi ciy nettali dafa mel ne léeg-léeg ñu dugal ci seen waxi bopp waaye ñun bëgg nañoo tënku rek ci li nga xam ne moom la sëñ bi wax ci kemtalaayu kat euh, xasida gi bu ko defee wéetuñu ci jotaay bi nañ ci ànd ak suñu mbokk mu baax mu ñuy wax al imam mu imaamul akbar imam Cheikh boroom borom fa di imam bu mag fii ci géej géejawaay marché bu bees di jiite suñ jumaa ji ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam tey moom lañ war a seqal jotaay bu tedd bi euh, di ko nuyu baax di ko ziyaara dañ koy jox mu nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy téléspectateurs yu Tàkku TV bu ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan wi kon al imam bisimilah ñu ngi lay nuyu di la ziyaara auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi lasina stafa alhamdulillahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawi nawali wali wa jaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatullah yaa miftaax ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay mm-hmm. di rafetlu ànd bi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak yow ci jotaay bu tedd bu màgg bii mm-hmm. fas yéene cee waxtaane xew-xew bu tedd bu màgg mm-hmm. fas cee waxtaane góor gu tedd gu mag mm-hmm. waaye fas yéene cee waxtaane mm-hmm. xasida gu tedd gu màgg ñu ngi la ciy nuyu di la ziar di la ci ndokkeel ci weer wi di ndokkeel mboolem jullit yi di ndokkeel ñi nga xam ne ñooy suivre Tacko TV di ndokkeel ki nga xam ne moom lañ àndal ci liggéey bi muy Seydina Omar moom Serigne saaliw di ndokkeel ñëpp ñi nga xam ne rek dinañ ànd ak ñun ci émission bi di la wax ne bismillah ah jërëjëf euh, Seydina ci nuyoo yu am solo yooyu ñu ngi nuyu suñu mbokk mi nga xam ni moo réalisation bi muy amaroo mu Serigne Saliou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax bu ko defee ni ko waxee rek la ñuy la ñuy la ñuy continuer comme que temps amul euh, bëgg nañ waxtaanee lan mooy màggal màggal riir mi rëy na coow li bari na la ko dalee ca première safar ba fi ñu toll nii dëkk bi yëpp a ngi saxaar foo romb la gàtt yaa ngi tëdd mhm. sees yaa ngay tege mhm. ña ngay waxtaan lan mooy màggal mi nga xam ni moo war a riir mu rëy mi loolu daal bëgg nañ koo xam màggal moom jërëjëf yaa Miftah laaj nga laaj bu am solo mhm. laaj boo xam ni mhm. euh, lu simple la ci déggin mhm. waaye lu jafe la ci ñu xam ko d'abord dañuy njëkk a taxaw ci baat bi baatu màggal màggal baatu màggal maanaa baat bi su ma dee wax dañuy wax ni baat la boo xam ni ci xew-xew bii mu amee lu jiit suñ tubaa maanaam xamuñu woon baat bi baat bi daawuñu ko waxee daawuñu ko waxee mhm. màggal màggal buñ ko doon firi ci arab moom lañ ko tudd at taazim mhm. mooy màggal màggal at taazim taazim mhm. alxuraan wax na ko wa man yuazim xurumatillah fa huwa xayrun lahu inda rabbi ku màggal lu yàlla màggal lu yàlla war maal est-ce que xam nga suñu borom waxinam damay wax ne chaque jour ne alxuraan li tax moom solo mooy nga xam waxinu suñu borom waaw wa man yuazim xurumatullaa foo xayrun lahu mhm. lahu mhm. liman yuazim xurumatullah ci waaw maanaam mhm. ki koy def ci moom moo gën ci moom moo gën ci moom moo gën ci moom inda rabbi fa boroma ci maanaam def gi mu koy def du ngir yàlla de waaye ci moom waaye moom mu def ko moo gën ci moom ndax su ko deful rek safaan bi fekk ko ci loolu mooy màggal loolu mooy màggal léegi nag Serigne Touba radiyallahu anhu bi mu bi mu bi mu demee ci tukkeem bu réy boobu ba jóge ci ñëw ndax tukki bi mhm. de sart yi daf see bokkoon at mi saa yu delsee natt yi dañ koy ful natt yi dañ koy ful dañ koy ful dañ koy ful est-ce que loolu dajee bokkoon mooy sart yi mu sartoon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ca ca ca bayti mooy ci daaru xuddus mhm. ci xalwaam boobu lu jiitu muy dem ci tukki bi ginnaaw bi mu demee nag ba jógee ci tukki bi jógee géej ñëw dellu gànnaar jógee gànnaar dem Céroon Jolof jógee Céroon Jolof ba ñëw njaareem dafa wax ne dafa am ci at mi moo at at yi at moo xam ne dafa toog di xaar natt bi ah. di xaar natt bi at mooma nag bi mu egsee mhm. natt yu ñëwut natt yu ñëwut waaw mhm. natt yu ñëwut mhm. mm, suñ borom xamal ko ne ko nag léegi mbir mi jeex euh, liggéey bi mat na ce que liggéey bi mat na liggéey bi mat na nag mu ni nag kon léegi képp koo xam ne sama mbég sa mbég la na nga ñëw santale ma sama borom euh. ma sama borom waaye bi sëriñ bi waxee loolu fekk itam moo ko njëkk a def loolu mën nay leeral moo ko njëkk a def moom moo di njëkk a def màggal 1921 mhm. moo daan na daan na màggal mhm. ci anam waaye 1921 moom moo njëkk a màggal mhm. euh, ay histoire yu gudd lay doon waaye sëñ Moulay Bousso xam nañ ko doomu sëñ Mbacke Bousso am addiyee juñ indiloon sëñ Touba aw bëy bokk ca mu dénk ko ko hmm. bu ko dénkee mu téye ko téye ko ba Euh, maagal gi jege si hmm. suñ Tuubaa ne ko ndax mën nga koo soppale am xaaf am xaaf mooy am xar am xar ah. waaw ba mu ko soppalee mu ne mën naa ne ko ba mu am xaaf ba mu màggal hmm. Sëñ ne ko defar ko hmm. mu defar ko bi mu ko defaree pare mu ne ko def ko temps de saam mu def ko saam mu ne ko joxal diw bi joxal diw bi joxal diw bii dinaa ca boole nag kenn ku nekk la koy yéwénal dinaa ko ca boole la koy togg la koy togg waaw <laughs> daal di paree nag ñu séddale ko te bu mu am xaaj ak seen est kon moom mi ngi ko tàmbalee di ko def noonu kon mooy bernde mooy bernde yi mooy moom bernde la ko doon defe amul xaaj amul seen amul xaaj amul seen ci moom la ko doon defe léegi nag mhm. mag ñi ci seenu xër mhm. ci seenu euh, euh, bëgg sëriñ bi mhm. ñoom dañ doon def ñenn ñi buñ seen tabaski jotee seen seen xar buñ léeg-léeg màggal duñu am ñu denc xar ma ñu denc xar ma bu tabaski jotee bu màggal jotee ñu rende ko est-ce que am si ñoo xam dañ ko doon tuddee tabaski moom màggal moom màggal ñu koy tuddee tabaskiwaat mooy maa ci baat bi ba tey waaw aywa ñu koy tuddee tabaskiwaat ñu mhm. koy tuddee tabaskiwaat nag mhm. sëriñ bi ci dëppoom ak sunnaam wallaahi ndeysaan ci fonk alxuraan ci fonk yonente bi wallaahi wallaahi mun leen déet mhm. loolu kenn waru koo wax oh, loolu dëppoowut ak lislaam kon tuddee leen ko màggal foofu la baat bi jóge tuddee leen ko màggal tuddee leen ko màggal waaye tabaski bu leen ko di wax ah, ci loolu ci dëppoom ak sunnaam loolu rek dafa baax nit ñi xam moo tax loolu de maa ngi koy door a dégg bis naka tey waaw tuddee leen ko màggal foofu la baat bi jóge foofu la baat bi jóge mhm. mhm. eh, ngir bañ rek ñu boole ci ñu koy ñu jaxase lu bokkul lu bokkul waaw leen mu Sëriñ Tuubaa naka jekk dafa bëgg leen lu nekk ñu koy teg ci tegwaay mhm. leen lu nekk ñu koy teg ci tegwaay bañ di jaxase lu bokkul loolu ci fonk Mhm. mu ni bu leen ko tuddee tabaski wa wallahi wallahi wallahi waaye man ñoom noonu ko daan wooye léegi mu ni tuddi leen ko màggal foofu la baatu màggal bi kon baatu màggal mhm. ngi génn mhm. léegi nag buñ ne su amee chaque moo a wax nan ni màggal bu ñëwee ma sant sama borom ci ñett ci bernde ci bernde ci ni bu leen xeeb ginaar bu leen yéem yéem bu leen xeeb ginaar te bu leen yéem gileem xam nga ci li ñuy jëfandikoo ñun ci liñ miin ginaar ginaar la ci gën a tuuti mhm. moo ci gën a tuuti mhm. li ci gën a rëy giléem giléem la mhm. mu ne bu kenn xeeb ginaar te bu kenn yéem giléem kon lu waay am def ci kon lu tàmbalee ci ginaar ba ci giléem Sëñ Tuubaa daa wax ni nañ ko nañ ko ko màggale ci waaye boo xoolee ni mu ko waxee sax lool boo boo ko boo ko seetloo sax da da dafay day am mbir bu kéem taane bu ci am xam nga ginaar ñaari tànk la ñaari tànk bëy ñeenti tànk la xar ñeenti tànk la nag ñeenti tànk la giléem giléem ñeenti tànk la boo ko boolee fukk muy 18 safar. mooy tombé 18 safar. la ilaha illallah ah. waaw ah, mooy de. xam nga. Mhm. loolu lu kéemtaan la. la ilaha illallah lu yéeme la waaye. Mhm. pour wane ni bu kenn xeeb ginaar bu kenn yéem gilee mhm. kon lépp lu jekk ci ñu rendikoo ci bernde ci sant suñu borom. nañ ko def. nañ ko def kon. muy bernde. bu ci des mu ni jàng alxuraan. jàng alxuraan jàng alxuraan jàng alxuraan da hmm. hmm. mooy bi muy dem ci tukki bi boo demee ci asirul wax hmm. rafiqi kitaabullahi wa mustafa nabi ma ashaabi fi ahri hina adur lay ndeysaan hina adur kon bi may dem ci tukki bi rafiqi kitaabullah lay ndeysaan ñii rek la àndal moo fi àndandoo mooy téere yàlla ci wal mustafa nabi sallallahu alayhi ma ashaabi fil bahri ridwan lay adur dëgg la kon ñett ñi ñun mo àndaloo bi may dem téere mooy sama wéttal bi mhm. sama àndandoo wallaay bi sallallahu alayhi wa sallam sahabaam mhm. yi xëy na adooru mhm. jamono jooju ñuy wër bi ma nekkee ci tournée bi boobam ñooñu la àndal kon kitaabullah mu ni kon nañuy jàng alxuraan ci ci ci parce man ñett suñ saali wax ni ku man ñett nga def ko ñett yi benn bi da koy def ngir jëmmi suñu borom benn nga def ngir jëmmi yonente sallallahu alayhi moo indi ñett yi wala sëñ Muntaxa ne ku mën ñett nanga ko def ah, loolu de sëñ Saaliw noonu la ko doon diglee lay ndeysaan kon mhm. mu ne alxuraan mhm. bi ci des mu ne xasida xasida yi xasida mhm. wax naa la rafi fi kitaabullah kon xasida yi li ci nekk mooy sant yàlla mooy sant yàlla mooy julli ci yonent bi mooy istixfaar mooy ay tasbihaat mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ak xasida yi kon màggal ñett yi rek la bernde alxuraan xasida xasida yi te loolu yëpp boo ko dajalee bernde la bernde loolu yëpp ci bernde la dugal bernde la lu tax lépp bernde la waaw mooy bernde day ñaari xaaj day ñaar dafa am bernde jëmm am bernde ruux bernde ruux Hmm. kon li ñu bernee la jëmm yi mooy li dalee ci ginaar ba ci giléem loolu jëmm yee ko moom jëmm yee ko moom hmm. waaye li ñu bernee la ruux nag mooy xasida yi ñuy def hmm. jàngale bi ñu jàng loolu mooy berne ruux te nit ñaar yooyu rek moo composé dafa am lu yaram yu soxla pour dund am lu ruux gi soxla pour dund ñaar yooyu bu ci manqué équilibre day am ña de euh, équilibre du am waaw équilibre du am te dafa war am tawaasu waaw mm-hmm. ah, dafa war am tawaasu waaw maanaam ruux gi mm-hmm. warul ñàkk ab dundam ba faible ba mm-hmm. yaram wi di ko dominer waaw jaram weet warul ñàkk ab dundam ba faible ba ba du defee nit ki du mat nit ci kon loolu lu am solo la ci màggal ci màggal wallaay dëgg la taarkalla li nga li nga li nga leeral am na solo wax dëgg yàlla man wax dëgg yàlla bari na lu ci umpoon man leer na ma ci sama bopp bi mais baatu màggal baat bi moom sëñ Tuubaa la ñuy màggal waaye yàlla la ñuy màggal yàlla sunu borom subhaanahu wa la moom la ñuy màggal moom la ñuy màggal. Ah. maanaam sëñ Tuubaa. Mhm. moo wax ni. Mhm. Eh, xaana sukuru ilaahi fi turaabi. ci baada jamili sabri fi irtiraabi. ci moo wax ni jot na ci man sëkk. Mhm. mooy li ma la wax ni biñ année bi mu toog di xaar natt bi te natt bi ñëwul. natt bi ñëwul. boobu mi ngi Jurbel. si la wax ni xaana sukurul ilaahi. fi turaabi fi léegi nag ginnaaw biñ ma génnee. yóbbu nañ man. Louga mhm. Ndar mhm. Kokki Konakiri mhm. euh, Daawume Maayomba Libreville indi waat nañ ma jël si waat nañ ma ma gànnaar ñeenti at indi waat nañ ma jël si waat nañ ma yóbbu ci yéen jolof juróom juróom ñett juróom ñaari at indi nañ ma jurbel natt bi ñëwut léegi nag jot na sëkk xaana xaana xaana sukkurul ilaahi lu jot mooy ma sant sama borom fi turaa bi nag léegi ci sama suuf si comme indiwaat nañ ma suuf soos mooy suufas njaareem waaye kay baax da jamili sabri ci fi xatiraa bi ginnaaw ba nga xamee ni muñ naa muñ bu rafet <laughs> ci tumuranke tumuranke tumuranke waaw mm-hmm. léegi nag mu wax ne suñu borom sant ko ci lépp mm-hmm. sant naa ko lépp mm-hmm. sant naa ko lépp chakartullaaha chakartullaaha bi ruuxi wa chakartullaaha askurullaaha ilal jinaani ilal jinaani ruuxi wal jasadi wal <laughs> ni sant naa sama borom di tàmbalee fii ma nekk ba àjjana damay sant sama borom ci di mm-hmm. ruux mm-hmm. ruux gi da koy sant mm-hmm. wal jasad yaram wi di ko sant di ko sant wal janaan làmmiñ wi di ko sant ci xol bi di ko sant mu ne ñett yooyu yëpp sant naa ci sama borom waaye doyu ma ci sama bopp doyu ma sama bopp mu indi ku xam ne sama mbég sa mbég la kaay sant la ma sama bopp waxul moom ñu sant maanaam dem na ba yëg dem na ba yëg lottu na ci sant gi ci sant gi lottu na ci sant gi lot xam nga sëñ Mbaye Diakhate sax am na fu mu ko doon waxee naan ko mhm. euh, sant la war mhm. ngir ne yàlla sëriñ bu nekk ay yëf la ko yàlla may mhm. yow nag dalaa sopp ba jëmmam la la may daal koo xam dalaa sopp ba jëmmam la la may moo tax nga koy sant mhm. xanaa ngay sant kay sant kay wëreeluy sant kay woote ko la koy sant <laughs> waaw boo goree waaw foofu la suñu tubaab lay dëgg la wallaay moo mhm. moom la ñuy sant moom la ñuy sant nañ ko moom sant gimis li ko mhm. ci sant ko doonte sant na ko ci waxam sant ko ci sant ko ci sant ko ci ay jëfam yëngatoom ak dalam waaye doyu ko na ñëpp ñëw sant la ko boromam ba pare amul xaaj ak seen ndax koo xam ne sama mbég sa mbég nga xam nga hmm. danaay wax ne jullit bu nekk oh. mbégum jullit mbégam mbégum jullit a rawat na bu dee jullit bu baax ci rawat na bu dee jullit bu am uh, njariñ hmm. rawat na bu dee jullit boo xam ne nitu yàlla bi waxul murid yi de ah, dane koo xam ne sama mbég sa mbéga sa mbéga ñëw na sant la sant sant kon màggal gi ñëpp a war a dem de ñëpp a war a ñëpp a a bégee ñëpp a a sant seen borom ci ñëpp a ndax màggal moom forcément rek dem Touba waaw du forcément dem Touba Mm-hmm. ndax ndax màggal gi yàgg na fi dem defewuñ ko Touba mm-hmm. xanaa la 1921 la Sëñ Touba màggal mm-hmm. te màggal gi Sëñ Fallou ko wër Touba 58 58 kon 21 ba 58 dañ ku nekk fa nga nekk nga ko doon màggal dañ ko décentralisé woon dañ ko décent ku nekk fa nga nekk fa nga ko doon màggal waaye ci anam boobu ci bernde ci xasida ci alxuraan sëñ sa sëñ Fallou nag moo dem ba jamono mu xam ne jamono laaj na nag léegi gëj a gisante bi gëj a déggante bi ak impact bi mu war a am mhm. ñu daje ci bërëm nag mhm. bu ko defee njàngale ma gën a mën a gën a mën a jub mhm. nit ñi gisantewaat mbokk yi jokkoowaat ñu ñëwaat te bërëm ba nga xam ne mooy fa la ba nekk mu woote màggal mu woote màggal waaw sëñ Fallou sëñ Mourou Sowa nekk ba jóge fi woote wu ko sëñ Fallou quarante cinq la toog cinquante huit a woote mu door a woote màggal kon ba tey it koo xam ne fu la fekk rek fu mu la fekk rek màggal ko man nga faa màggal waaw fu la fekk rek mën nga faa màggal waaye nag dem Touba. mooy dem ndax aljamaatu rahma. walaay ndeysaan aljamaatu rahma waaw dem gisanteeg say mbokk rek de gisanteeg say mbokk jar na jaroon na lu ne dem ñi nga gëj gis leen jar na naa ñu def ci waxtaan après màggal gi li muy li muy li muy dugal ci économie bu Sénégal xam naa dinañ ci jàpp bis insha allah ñu waxtaan ci loolu daal loolu daal moom moo nekkoon premier point bi tabarkaala li nga ci wax dégg na sama nopp te xam naa ñiy seetaan nii tamit wax dugg na seen nopp yi mm-hmm. mu des ñun Sénégal wala ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy bëgg màggal mm-hmm. léegi ndax ñun dégg nañ màggal waaw xam nga <laughs> xam nga nag nit ñi mm-hmm. nit ñi en général ñoom mm-hmm. euh, mbir bu ñëwee damay wax ne chaque jour mbir dafay am lu ñu tuddee arab dama lu ñu tuddee lubb lubb waaw waaw shay wallaay ndeysaan am na quintessence loo xam ne mooy njëriñ mooy njëriñ nit ñi nag en général ñoom ci sax xiyaat la ñu nekk ci maanaam lu superficiel li ci kaw rek li nga xam ne mooy seen i bëgg-bëgg leen di kontaan loolu day gis ni màggal gi bu jub see am ñoo xam ndeysaan loo xam dañ la nañ sant suñu borom ci bernde mhm. ci xasida ci alxuraan nga téere ko ab clip ab clip boo xam ne da ngay fecc di way di nanga xamal kooku xamul eh, xamul màggal mhm. gis koo xam ne maanaam tay day son lool ci yére laxasaay yi kay day daal sonn laxasaay yi jaroo daal di préparé nangam loolu yëpp dina ko boole jaral ko mu di téléphone bu bees waaye lu ñu ci rek mooy mhm. egg sinap wane ni maa ci màggal gi déedéet waaw loolu loolu taxutu jóg màggal donte nit moom euh, euh, Euh, dinaa yi wax nañ ni nañu natt hmm. nañu natt hmm. Hmm. buñ natee ni première safar ba 18 safar maanaam li ñuy tuddee daara lépp lu nekk daara ci Touba nga xam ne ay daara kaamil lañ leen tuddee ñu sëriñ bi moo yor seen dund suba ak ngoon dañu amalee premier safar 18 safar daara yëpp ci Touba daara yëpp oh. te ñooñu lii seen liggéey mooy suba ba ngoon jot ñuy jàng alxuraan ngir jëm ci bis bu mag ba waaw nga xam ne ñu tàmbali lañ ko premier safar mu jëm 18 safar maanaam sëñ bee gàddu seen lépp ñoom amuñu lenn lu ñuy def la ñuy sol lekk ak naan lépp sëñ bee war li ñuy def mooy xëy di jàng alxuraan ba guddi jot ñu tuddi yeewu fajar commencé waat loolu am na fa ci Touba kon loolu mën nañoo natt foofu dinañ natt ñaata congrès moo am mhm. moo tamaraat yoo xam dañ koy def mu jëm ci wàllu xam-xam mhm. fii may waxe yow li tàmbalee première safar mhm. ba quinze safar bis bu set ay comme ni ñu ko defee ñun hmm. boo demee muxaddimat xidma daayira muxaddimat xidma bi yor jumaa hmm. bis bu nekk ak thème yi ñuy hmm. ak borom xam-xam yi ñu koy te mi ngi am mi ngi am noonu lañ koy defee ci dëkk yu bëri ci ci ci Sénégal noonu lañ koy defee sax bu bitim réew loolu loolu njariñ la léegi nag hmm. yi ci des nga xam ni hmm. nit ñi ñoom seen ñoom seen loolu seen tolluwaay la seen tolluwaay maanaam hmm. lu xew itam mu duñ bañ nit ñi def te seen i business waaw waaw ki nga xam ne moom waykat la day profité ci màggal ngir am ci ay vie am ca lum ca mën a jëriñoo tey ba profité ca commerçant ba yooyu duñ leen ko bañ waaye du tee nag ña nga xam ne xam nañ njëriñ gi xam nañ la ñuy def ñu natt ko foofu te loolu lépp day duggaat ci njëriñ la day duggaat ci njëriñ waaw day duggaat ci njëriñ maanaam da sëñ Abibu Mbàkke doon na wax ni maagal mhm. euh, gi moom ginnaaw sëñ Tuubaa bernde la wax mhm. te bernde moo ci gën a ràññeek mhm. mu ni ki nga xam sax dafa ñëw di lekk ba fër kooku sax moo gën maa kenn gënu koo màggal wallaay day sax waaw ndax bu du woon ak kii lekk ba fër bu du woon ak njóobee ni jëru ñuy def bernde jëru ñuy def bernde waaw bu ñu amuloon ñu koy lekk jëru ñu koy def kenn gënu koo màggal kenn gënu koo màggal kenn gënu koo màggal kon yooyu yëpp dajee dajee dajee bokk dafa maanaam ay nit dafa nit moo baaxoo ay dese waaw nit moo baaxoo ay dese mhm. yonent bi sax daan na dem xare am ñoo xam daan dem mhm. nekk di xeex ñu leen di jam ak lépp mhm. demuñu te gëmuñu am na leneen lu nekkoon seen ginnaaw hmm. saa su nekk mbir su taxawee day am ñoo xam na loo xam moo nekk ci ginnaaw loolu moo leen ci ñor loolu lañ cay def hmm. waaye nag du tee nag ñu soññi leen ci delloo si leen waaw kay ma ngoog ci delloo si leen hmm. xamal leen lii mooy manque ko def waaye nag yooyu yëpp mën na bañ doon ëpp solo ci màggal mën na bañ doon ëpp solo ci màggal màggal mhm. mooy buñ mhm. jógee ci màggal war nañ faa dund ruux yi war nañ faa dund dund borom fii ba déwén mhm. ndax dinañ xool lan lañ jàngate ci Sëñ Tuubaa gi lan la jàngal njàngalam Sëñ Tuubaa lan lañ ciy jëlaat lan la ñu war ci suñu doxalin la ñu war a soppiwaat ci suñu toogaay la taxawaay yooyu yëpp mooy li xam ne moo ëpp solo moo ëpp solo donte nag dina am ñoo xam du mën a ñàkk ñu def seen seen bopp est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ñoom wàllum wàllum bi gënu a yitteel wane wane wane wane mbirum people bi mbirum folklore bi waaye dem fa gars yi di jànge alxuraan jàkk xasida yaag ya aju yëpp daal est-ce que loolu moom tabarkàlla looloo tax ma fàttali la yu baax yi am ci biir mm-hmm. nga xam ne ñi ñoom it xam nañ moo tax bi nga xam ne mooy conférence bu mag bi nga xam ne képp kuy kilifa diine ci mm-hmm. Sénégal kuy mm-hmm. këru diine Sénégal fa ngay daje nga xam ne nga am ci guddig nekkul thème boo xam waa ji day ñëw taxaw toog di wax rek mais téere la bu ñuy bind ba mu egg nga xam ne bu ñu ñëwee ci conférence kenn ku ne dañ jox téere nga téye nga téye li muy wax nekk ci Sénégal danga fay yaa nga toog mooy bis boo xam ne rek hmm. ci la diine Sénégal di daje amul benn nag hmm. këru diine bu nekk Sénégal mu doo fa daje des na mu des quinze pays yoo xam ne hmm. quinze pays musulmans yoo xam ne ci bis boobu foofu la daje quinze pays yoo ñëw foofu la ñuy te foofu xam-xam rek lañ fay produire te ñu bëri sax daanaka li nga seetaan màggal gi ba mu jeex sa gis conférence doo ko gis wallaay ndeysaan dara ko yaaxan di ko di ko organiser yooyu média dafa dafa doon loo xam yow xam nga média <laughs> dafa doon loo xam mbirum business la <laughs> ñoom dinaa wax ni koor gi sax boo xoolee seen émission yi nga xam ñoom ci business ci business la ñoom lu leen mën a xaalis lu leen mm. mën indil dara lu tax nit ñi xool ko mm. loolu la wax loolu tamit mm. dafay delluwaat ci population bi rek mm-hmm. parce que boo gisee ni population bi tey li mu taal li mu wax am na solo loolu waaye duñ ko xool waaye ki nga xam ma ngay wax naka su du noonu la xool loolu day delluwaat rek ci tolluwaay population loolu day dellu ndax buñ tabaxoon nit ñi ba nga xam ne buñ hmm. gisee ayib alxuraan dinañ ko taxaw hmm. buñ gisee koy wax lu baax dinañ ko taxaw hmm. waaye buñ gisee koy wax lu baax jàpp ni nekkul ci dara bu lu gën a dooni caaxaan buñ gisee mu am un million de vues ci lu ma loolu day wane tolluwaay société loolu day wane rek war nañoo tabaxaat société bi war nañoo defaraat nit ñi war nañoo defaraat nit ñu xam lan lañ war a xool loolu moom day delluwaat ci société bi walaay dëgg la jërëjëf jërëjëf imaam xam naa ni buñ ko toppee euh, dana lekk suñ temps te nag dañoo war a waxtaan ci ay yeesa minnillahu inda jeewali xam naa ni direct foofu la ñuy jàll rek dugg ci xasida gi tukki bu rëy bi tukki suñ tuubaa bi tukki bi nga xam ni moo ñu moo ñu moo ñu def nii ñu ne mhm. tukki bi nga xam ni moo ñu jox jàmm ji mhm. tukki boobu ak xasida gi nga xam ni mooy ay sa mi ni mhm. loolu lañ bëgg ñu waxtaanee ko jërëjëf yaa Miftaah laaj boobu am na solo soo gisee ñu taamu <coughs> waxtaan ci xasida gi ñu tudde ay saminillah inda jéewale xasida gi boo seetloo suñ bor suñ tubaab mi ngi ko tënkee benn aaya alquran bi ñuy wax inna ibadi sa laka alayhim sultaan moom la ko tënk est-ce ah, alif gi mooy mm-hmm. mooy alifu innaga mm-hmm. Mm-hmm. nafaali xëyri mooy nuunu innaga noonu la koy toppee ba mu jeex ba xasida ba xasida gi jeex ah, ah, xam nga eh, eh, alxuraan jibril iblis keroog ba suñ borom waxee ñu su jootal aadama dafa bañ abaa wastakbara wa kaana minal kaafiriin wallaay ba ko suñ borom waxee ni dinaa la alak dinaa hmm? la faxruj fa innaka rajim faxruj minha fa innaka rajim mhm. génnal ci kuréel googu ndax yow mhm. ak seytaane mhm. dafa ñaan suñu borom ni ko nag ma dimbali may ma force tanzurni ilaa yawmi yub'asuna ko defee suñu borom ni ko may nañ ba yowmal xiyaam nga am force ak kàttan ak pouvoir bu mën a jaxase ko bëgg a jaxase waaye nag suñu borom ba mu waxee ni ko la aqodanahum ajmain ilaa siraatikal mustaqim suñu borom di ko wax ni inna ibadi laysa pouvoir bi ma la may yëpp Mm. nga ni ñoom ñëpp mën nga leen a dëngal mm. ba dugal leen jeng ci sira yoonu jub bi mm. des na am na ci sama jaam ñi nag ñi nga xam sama dëgg dëgg jaam lañ na ibaad yi ñi nga xam sama dëgg dëgg jaam lañ ñooñu yàlla da ko delloo ci boppam yaaw mu takkal yi gis nga ko de ah <laughs> Sidi si bu suñ Babacar si yàlla na yàlla yokk leeram uh-huh. na ñuy waxtaan mu may ñaanal mm-hmm. ni ma ñaanal mooy dama damaa bëgg suñu borom dugal la ci mm-hmm. diggante yaawu mm-hmm. ak deelu inna ibaadi inna ibaadi ko yàlla dugal kenn mënul mucc nga wallaay ndey oh. mm-hmm. ko ba mu des sama dëggi dëggi jaam yi mm-hmm. ñooñu moom lay saxale kon daa am na ay jaamam yoo xam ne kenn du leen dévier mënoo ci ñoom dara wallaay ndey sa mm-hmm. dara suñ bi moom la tënk xasida gi li tax ñu taamu ko mooy dafa bëri lu ñuy nettali ci tukki bi waaw wallaay bëri te loolu nit ñee koy nettali te Sëñ Tuubaa day wax ne jaloore borom koy nettali boppam est-ce que waaw loolu de moo ko wax waaw Sëñ Tuubaa nee jaloore borom moo koy nettali moo koy nettali boppam te Sëñ Tuubaa day tukki bi dafay xool ci boo xoolee xasida gi bu ñu ci duggee day gis ne étape bu nekk hmm. da wax lan moo fa xew lan moo fa xew ci biir xasida ci biir tukki bi hmm. loolu moo ko waxal boppam kon mënoo koo mooy solos euh, hmm. lu jiitu loolu mooy sëñ bi nekk na Touba juróom-ñaari at mu ngi fa ñëw 88 ba 95 koor gi mujj ci 95 la def xalwa ci ci bayti ci Daaru Xuddoos ba mu fa defee xalu ba koor gi daa jeex mu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. nee na bi muy gis yonent bi mhm. mi ngi ko gis waraa a mhm. raqiq mooy gisu ko direct hmm. mais am na lu oyof lu dox seen diggante mu gis ko loo xam mi ngi seen yonent bi yonent bi seen waaye eggul ci moom mënu koo laal yonent bi nga ànd ak ahlu mu ni yonent li ma bëgg mooy sa gaay yi nga àndal ma bokk ma bokk ci ñoom yonent bi ni ko loolu faat na hmm. ndax li ko doon maye mooy dem xare Badar xare Uhud rayante doonante xeex te te loolu amatul daan ko te leneen li koy maye hmm. mboolem góor yàlla yi toll fi nga toll bañ ko ñaanee hmm. bu leen yàlla tegalee nattu yi dañuy daw dañuy daw hmm. daan ne ko nag yow sa ñeen fukki at manqué na ñeenti weer waaye man naa ko accéléré defal la maqaamam xutbaani ya xutbaani ya xutbaani ya nga xam yi yaay yilif jamono suñ tubaani ko déedéet li ma bëgg daal mooy bokk ci sa gaay yi ma bëgg ba léegi kon dafa insisté waat bëgg a bokk ci gaay yi bokk ci gaay yi loolu mooy al walaay yitte ju yitte ju kawe yitte ju mhm. dafay am yitte ju kawe mhm. nit bëgg al maalil mhm. day xool booy dara lu mu xew rek la ca gën a kawe loolu ngay loolu loolu lay wala nit ki am itte loolu a yóbbu bi ni ko waaw su dee man naa nekk de ci ay sart ci ay sart sart bi ci njëkk mooy doo jàmbat nattu yi suñu borom dina la ko teg nattu yooyu ma lay teg at mu jot nattu yi day fulu day fulu day fulu saa soo jàmbatee ñu rekki sa garaat ci pays yàlla mhm. benn mhm. suñ jubaani ko ah, ruux gi de laa moomul ba mën koo garanti ci waaye suñ ma garante lay ruux gi lu ñu ma teg joom ji attan na ko oh. <laughs> loolu wax yonent ko beneen sart mooy dëkk bii nga nekk di Touba faaw nga génn ko mhm. ndax suuf la soo xam suñ borom doo la fi teg natt xam nga nag Touba dafa am particularité xam nga tuubaa pàkk la boo xam lu jiit suñ jubaa dafa dem kenn mosu faa mooy yàlla oh. lu jiitu suñ jubaa dafa dem kenn mosu faa mooy yàlla ndax sëñ Tuubaa moom moo ko sànc te mu ngi koy sànc ay rab ay gaynde ak kii la yooyu ñoo fa nekkoon mhm. te te te beneen bërëb bu mu mën a doon ba ci Màkka li baax baax ba ci Madina yëpp dafa jiitu lislaam mhm. mhm. waaye Tuubaa kenn mosu faa mooy yàlla jug sëñ Tuubaa di ko sànc boo xoolee sax Cheikh Omar ñëw na fa ndax dem na Mbaaka gént ñu wan ko pàkk bi mu ñëw fa ba mu ñëwee la xamle ni ca gise ba mu gisee soxna jaara loolu histoire bu ci la moom pàkk bi kon boobu suuf soosu la doon wër moo tax boo déggee sax sëñ Musaa Ka hmm. dee nga dégg mu naan ko diggante Touba kii ndaam hmm. amoon na ni jaloore soog a xam daaw hmm. kon maanaam Touba dafa ne leer gi ma nga fa woon lu jiitu leer gi ma nga fa woon lu jiitu lu jiitu sëñ Touba di fa mhm. ñëw mhm. leer gaa nga fa mhm. kon damay wax ni Touba lañ koy màggale du li ci kaw loolu mbirum biir la mooy la sëñ Moussa diggante Touba kii ndaam a a xam lu jiitu sëñ Touba di fa ñëw jaloore yaa nga fa jaloore yaa nga fa moo bi da nga koy génn ndax kenn du la fi tege natt kenn du la fa tege natt beneen mooy am nga nitu yàlla la te buñ la tegee natt bu ñaanee yàlla yàlla teggi kon faaw day faatu ci xam nga ñett yi lu metti la te sëñ Touba lim gën a bëgg mooy Touba dafa bokk lim gën a bëgg mooy Touba. Touba moom sëñ Touba da ko bëggoon ba boo ñëwee Masana ñëw sax ni ko Touba laa jógee da lay ci jóge nga jóge Touba bëgg gi bëgg Touba. <laughs> est-ce que ndeysaan bëgg Touba est-ce que kon mhm. loola waral koor ga jeex mu toxu mhm. génn Touba dem sañ ci Mbàkke Baari ah. waaw xaraja min Touba mhm. ila daarihi Mbàkke Jolof alladi banaahu li taallumi wa noonu la ko waxee noonu la ko sëñ Mouhamadou mhm. la génnee Touba dem sañ ci Mbàkke Baari nga xam koo tabax ngir jàng ak jàngale mhm. muy dem mhm. mu ni sëñ Mbàkke Bousso na fi des lu ñuy laaj ci diine mu ko lu ñuy ci diine mu tontu ko mu tontu ko ñuy bind ak lu ñuy def mu toon jàngale di jàngale xam-xam am Ceerno tamit mu dem di jàngale xam-xam sëñ Daam Abdu Rahmaan di jàngale alxuraan mu dem ba mu demee Mbàkke Baari nag toog fa ab diir sa la sëñ Bousso ba faatu ah. nga xam bi mu ñëwaat di jaale sëñ Bousso bi sëñ Touba jaarul Touba ndax pacte bi ah. jaaru fa jaaru Touba ndax pacte bi mhm. boobu sëñ Bousso bi fu mu ne boobu sëñ Bousso bee ngi eh, Bousso bi di ci di ci di ci di ci ndaam mu jaarul Touba dafa mhm. teggi dem jaale ji ko delluwaat delluwaat delluwaat delluwaat delluwaat jóge jóge Mbàkke delluwaat Mbàkke mhm. Baari Mbàkke Baari jaaru Touba ngir pacte bi mu sëñ ak li muy bëgg Touba yëpp dem nag hmm. foofu Mbàkke Baari nag la des hmm. nekk fa nekk fa foofu nag la sëñ bi waxee ni hmm. nekk naa fa lu yàgg tubaab bi di yónnee ay lettre di bind ay lettre waaye du ma tontu ndax booba nee na mi ngi xaar ndigal li war a jóge ci boroomam war a jóge ci yonent sallallahu alayhi wasallam ngir mën a génn dem ci tukki moo tubaab bi yónni na ay yooni yooni yoon yoo xam ne si Tuubaa tontu ba ci bu mujj bi nga xam ne sa la yónnee maam Ceerno Ndar nag ngir mu yóbbu ji lettre bi maam Ceerno dem Ndar nag avant muy ñëw ak maam Thierno demin ba mu demee mhm. tontu ba mu leen tontu mhm. soxla gën soxla woon suñ tubaa tam yebal maam Thierno mhm. loolu merloo gouverneur ba nga xam ne dina avant maam Thierno di egsiwaat yónni na ndaw li war a jël si sëñ tubaa waaw kon de yëf yaa ngay bëgg a sotti waaw waaye yónnee gi tamit téewul boo fekk na ndigal li rot tamit jóge ci yonent bi salaay salaam loolu la sëriñ bi wax ni wa jaala al mustafa sallallahu alayhi fi l ali wa man walaahu xijaaban maanian min ad darar su ma ginnaaw boobu nag la yonent bi def mhm. la ñëw jox ma ndigal mhm. yemul ci jox ma ndigal waaye def ci defal ma ajaab boo xam ne maa ni an mi na dara mhm. léegi yonent bi nee na kenn mënatu laa kenn mënatu laa loo su ma loo xaala imshi dama nag léegi demal laa tax sel xaral ci waru du ko ragal ndam rek nga yam xam ne maam seen mi ñu def fekk sëñ Tuubaa ah? yaa ngi ñëwaay sëñ bi takk bi mu ñëwee rek sëñ Tuubaa dana ko matumaa jëru nga may nekk dara ndigal li rot na am na ne sëñ fajar gi fajar gi maam Thierno fekk na sëñ jubaa daa génn ci jàkka ji rek duggaatu ci kër bi ndax ndigal li rot hmm. na wala duggaatu ci kër gi dafa takkalu fas wi rek fas woo moo ñu tuddee awnu la daa di war uteeg moom waaw maam Thierno ñëw taxaw mu war doxab jéego taxaw ci xorondom daal di daal di daal di woo sëñ Modou Moustapha woo sëñ Fall boobu ñoom ay ndaw la ñu ngi hmm. toll ku nekk juróom-ñaar hmm. daal di daal di teg loxoom yi sëñ seen ñaari bopp di leen dénk naa leen yàlla ak seen bàyyi Thierno oh. def naa leen yàlla ak seen bàyyi ceer faalu bu koy net da ngay dégg mu ni boobu maa ngi taxaw oh. suñ faalu mhm. nga da koy net day wax ni boobu maa ngi taxaw boobu maa ngi taxaw waaw mu leen dénk naa leen yàlla ak seen bàyyi ceer seen bàyyi mhm. a départ nga jëm ci tukki eh, a oh. départ jëm jëm ah. loolu lu diis la lu metti bu lu metti noonu suñ faalu mi 88 95 hmm. juróom-ñaari at la sëñ Mourou Moustapha mi ngi judd 88 88 95 juróom-ñaari at la hmm. sëñ Baara judd 90 ndeysaan am juróomi at nga war fee bàyyi njaboot googu oh. nga war fee bàyyi njaboot googu dem ci tukki boo xam ni euh, tukki bu métti la moo tax sëñ bi euh, lu hmm. daw yaram mo doy na waar lool posóori xalat waa ahlu an ni tafarraqat li mat il lesi anhul madi xasiiru waaw tas nañ samay kër tasaare sama njaboot lépp lakk samay dëkkuwaay lu tax li ma ay lisi anul madi xasiru tagg ki nga xam ne rek mhm. kenn mënut a tagg ba jot aw taggam mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek a tax ñu tas sama kër wéetal sama wéet taqali maag sama njaboot xam loolu lu kéemtaane la lu daw yaram la nga war a bàyyi njaboot gu mel noonu léegi nag mhm. sëriñ bi génn mhm. waaye comme li ma lax wax tase naag tubaab bi moom it yónnee ñu jël si ko tase naag tubaab bi yoon ne ñu jël si ko mu génn foofu départ euh, Mbacke Bari jëm egg fi nga xam ni nag mhm. mooy fi ñuy wax jéewal jéewal jéewal la taseeg tubaab bi ñu koy jël kon li leer na ni fa jëm moom ragalu waaw nga ngay yi ñu lay jël ndax boobu li ma la wax mooy ndigal li wadd na wadd na wallaay de ñoom it mer nañ waaye xamuñu ni moom boobu ndigal rek la doon xaar xamuñu ngi jàpp ni daa ragal ak day dëgërante ba fekk moom ndigal lay xaar oh. waaw ah, bi Moustapha joxee ndigal li nag mu jóg ne la moo tax mu taseeg ñoom jéewal ñu koy jël si ñu koy jël si waaw ah. hmm. léegi nag nee na bi mu egsee jéewal hmm. foofu hmm. tàkkusaan la fa egsi waxtu tàkkusaan waxtu tàkkusaan nee na tàkkusaan boobu mu egsi jéewal nag dafa fekk suñu borom subhaana taala jox ko ndigalal jéewal la war a fanaan waaw ah. <coughs> maa ngi jéggul jox ko ndigalal jéewal la war a fanaan tubaab bi jot ndigalu nañ jël sëñ bi indi ko ñu daje ñu daje jéewal ñaari ndigal la ngoog de waaw ñaari ndigal te moom hmm. boromam hmm. jox na ko ndigalul jéewal la war a fanaan hmm. nee na nag foofu tubaab bi ni ko da ngay dem moom mu ni day fanaan foofu la waxee ni foofu la waxee ni iblis ci boppam foofu laa ko njëkk a jàggee ruux mooy bayit bu njëkk ko njëkk moo taxaw pour wane ni tubaab bi jaay jaay leen ci nañ ko yóbbu moom mun leen ndigalul fanaan la am bi tar suñ tubaab loolu wax ne la wax ne bi ma bi ma noon bi jub see rek damaa damaa dummóoyu mu bas milan xam siina mhm. mu bas milan xam siina mooy ma jàng juróom fukki bismillah a rahim tëfle sama kanam tubaab bi daal di nooy daal di nañ ko bàyyi mu fanaan est-ce que oh waaw juróomi juróom fukki bismillah wax ne dafa gestu rek mu bas milan mhm. xam siina nen damaa wane dama ko ba ma muy ñëw di xaacu rek ma mhm. wane ko gestu rek jàng juróom fukki bismillah rahmaan tëfle sama kanam mu daal di nañ ko bàyyi oh. mu toog foofu nag Iblis nee na moo leen bëggoon foofu sax booy demee ci Irwa si Mouhamadou Lamine nett na fa lu am solo nee bi ñu expo dañoo jeexal tàkk ndox ñoom sëñ Touba waaw ak ñi mu àndal ñëpp ñi xar tàkk ndox hmm. te nee na xam nañ ni hmm. sëriñ Touba hmm. du julli jàpp oh. ñoom te ñoom nee nañ ñoom ñu ànd ak moom mar nañ mar woo xam ne xam nañ ni du ay nit du rek buñ saase rek ñu gis waajoo xam ne xamuñu ko xamuleen dégguñu lu ñuy wax moom déggul lu ñuy wax ñoom it dégguñu lu ñuy wax nee waaye dañ koo tàllal ndab yi ñu yor rek satala yeeg yooyu mu duyal leen ko mu fees ñu ko geesu gisatuñ loolu mooy kéemtaan bi njëkk kéemtaan bi njëkk a feeñ foofu ci jeewal jeewal mhm. ci da nga daan bi déet xëy léegi nag sëñ bi nee na mhm. xëccoo gi tubaab bi doon xëccoo ci dem manaan dem nee loolu iblis fexem iblis la euh, iblis a duggoon foofu moo duggoon foofu fexem mhm. tax mu ne la ayyesa minillahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaaw isnaadaytuhu bi yaaw mooy ñaan nga mu bas milan xam siina ndax boobu nee jamono jooju mi ngi wérd sëñ tubaa nee na jamono jooju mi ngi wérd inna wali yallah lazina salal inna waliyallaahi lazi yatawalla saalihiin nazala kitaab wa huwa yatawalla saalihiin waaw yatawalla saalihiin inna waliyallaahi lazi nazala kitaab wa huwa yatawalla saalihiin neen loolu moo doon wér di ci yoon wi moom la doon wax waaw ah, moo tax isnaadaytuhu bi yaa wali <laughs> bi wali ndeysaan waaw ah, iblis maa ko njëkk a ruur waaw ah, iblis maa bu njëkk a jàggee ruur mooy yokkatloo na ay mm. yësami nillaahu mm-hmm. iblis suñu borom yokkatloo na iblis ci man mm-hmm. mm-hmm. in la jéewale a jàkkee ci man ci loolu ma doon ndax ne nag jamono jooju mi ngi wérdu inna waliyallah lazi nazala alkitab wa huwa yatawalla salihin la doon wérdu mu ni kon foofu laa njëkk a iblis ruur loolu lay loolu eh, loolu lay namu ci bi yaa wali jooju bi yaa wali gi mooy sunu borom ba ma woowee sunu borom ñaan ko ci yaa wali mooy inna wali inna wali yàlla moom la namu ci yaa wali <laughs> ndeysaan ma tabarkàlla waay mhm. kon foofu la Iblis moom pare mhm. combat moom Iblis foofu la jigéen Iblis moom dañ mënatul la yàqal sëñ kon la yam moom maanaam li ñu wax naan xaw ma nañ premier tour lañ ko éliminer foofu moom yéen na ci tour bokkutul ci Iblis bokkul moom oh. ayesa minillahu ah inda jéewal xam nga iblis soriwul. soriwul de moom moom ah, iblis ne. inda jéewal yi iblis is naa day tuhu bi yaawali bi yaawali foofu la yem. ndeysaan tabarkalla tabarkalla iblis moom demut. Mhm. <laughs> Uh-huh. moo tax mënul yàq dara moom suñ tubaa dem dellu si sain et sauf parce que iblis mënatul ci moom mënatul ci moom dara waaw ah, mi nga xam moo warul gars yi ñu leen yàqal kon ma nga dellu ca la mu tënk xasida rek mhm. inna ibaadi yi laysa laka alayhim sultaan kon suñ tubaa min abadillah waaw wallaay dëgg la dëgg la min abadillah ndax mhm. yàlla du n'importe qui lay wooye abdu uh-huh, abdu waaw ah, kooku abdu innahu awaab subhaanallazi asra bi abdihi laylan kooku yonante bi la kon du n'importe qui lay wooy abdu moom lay di wallaay ndeysaan du n'importe qui mm-hmm. lay abdu mm-hmm. kon ci la bokk mm-hmm. nafa li xayri la léegi mu jógee kon léegi jeewal fa la fanaat mais dañ fanaanee ba fajar ñu takk jóg jëm kooki jëm kooki bi muy dem kooki nee na ci la commencé di way nag li ñuy tuddee asma ahlu badri asma ahlu badri mooy xasida googu ah. ci la commencé di way foofu la commencé di sadd di way asma ahlu badri dem kooki wàcc fanaan way asma ahlu badri ba fajar fajar ñu fajaroo kokki loolu samedi la mhm. dimanche kon fajarug dimanche mhm. ñu jóge ñu jóge kokki mhm. ñu jóge kokki jëm Louga jëm Louga jëm Louga suñu tubaa nee ñu jógee kokki jëm Louga booba mi ngi war fas wu tudd awnullaa wax awnullaa euh, gaayan ko jiital ñu jëm Louga nee booba jamono ji bi ñuy dem wa sama yaris wala mataru yaris nee na taw mi ngi wis mi ngi wis mi ngi wis taw ñuy dem bi ñuy dem nag ci diggante boobu am na ko ku ñu tudd Soose Saw mi ngi bokkoon ci ci ci ci ko jël si woon hmm. ko jël si woon ah. mu xawoon a ñeewante sëriñ bi sëriñ bi neen da koy jege day daw ba jege ko daan ni ko ah lépp loo xam ci ñaan ak lii mu waay da bay ba nga def ko ah, ndeysaan waaw hmm. lépp loo xam ci ñaan hmm. ak lii mu bay ba nga def ndax léegi ñu egg ci ndax léegi ñu egg tubaab waaw suñ tubaa nee ma ne ko suñ borom moom du fàdd mhm. waaw suñ borom mhm. inna allaha la yaqi wala yataqar suñ borom du fàdd du mhm. tardé du tardé du fàdd du tardé <laughs> nee na mu dem waaye nee téewul rek ci yërmaaneem ba yàgg mu ñëwaat ne ko ah lay ñu tubaab bi de waaw sax am na ci gendarme yi koo xam ne sax tubaab bi dam na ko ni ko defal sa fas yu na def ndànk waaw yow yéen lay woo ngir sànk la ngay daw ba sa fas yu na ma ne ko oh. lan mooy pexem ku ku kilifaam yónni muy def ndànk muy def ndànk su kilifaam la yónni yàkkamti woo hmm. man nga man mi nga nga may def loo ndànk te moom xamul ni xamul sëñ Tuubaa ci ndigal la yox day dox moom it ci ndigal kon ñu dem <laughs> nafaali xëy waaw ñu dem kokki hmm. ñu dem luga hmm. luga nag fa la waree saxaar Louga waaw fa la waree saxaar la saxaar moom lay tuddee gaal jéeri gaal jéeri waaw fa la waree saxaar nag dem ndar dem ndar ah, ndeysaan ndar googu nag fa la dem nekk fa lu yàgg ndar def na ba fukk fan ak juróom wala lu ko ci la ñuy ci la ñuy nettali diggante boobu mu nekk ndar nag hmm. boobu gaa yi tubaab yi yàgg gam fa yàgg hmm. ñu ngi xool pexe ci moom hmm. ñu ngi xool pexe ci moom nan la ñu war a def ci moom fuñ koy jaar waaw waaw fan lañ ko war a jaar dañ koy rey dañ koy génne wala dañ koy euh, luñ koy def loolu lay wax ne nee na jamono boobu mu ngi nekkoon Ibrahima himmi yi wa Muhammadul xuluqi <laughs> nee na noonu suñ tubaab nee na jamono boobu diggante boobu laa toll ci ndax boobu ñu ngi xool la lañ ko war a def mu ni mu mi ngi mu ni tamit loolu boo ko dee netti da koy natt ci aaya bi nga xam ne màkk ñi ngi dem def seen mutamar boobu nga xam war a war a dañuy rey yonent bi mm-hmm. wala dañ koy génne mm-hmm. wala dañ koy bàyyi ci dëkk bi luñ ci war a def is yastamiru waaw is yamkuru bika alladina kafaru la mm-hmm. yaqtuluka aw yaxrujuka aw yusbituka aw yaxrujuka wa yamkuruna wa yamkuru llahu wala xayru makirin nee na foofu la tolloon mooy Muhammadul xulli xi foofu la tolloon kon mhm. diggante boobu nekk nañ fa intervention yu bëri tamit am na foofu ci nit yàlla yoo xam ni yéene mhm. nañ ko mhm. ah ñëw kat kee ngaa jéema masla nangam ak nangam ak yooyu yooyu yëpp am na fa yooyu yëpp am na fa yooyu yëpp am na fa kon yooyu xew ndar ba nga xam ne nag léegi jël nañ décision léegi génn loolu suñ tubaab di wax ni kon diggante boobu dañ doon xool ban pexe la ñuy def. ban pexe la ñuy def ba sànq loolu lay wax ni. Mhm. wa àdd xalal ilaa fi xulubi man. Mhm. te sababu ixraajuhu mhm. ilal bilaadi maa yi. mooy ñi nga xam am ñoo xam ko nañ ko yóbbu ca. nañ ñu ko génn. amuñu lay. deful lu tax na koy deful ñu tax ñu war ko mën lay. buñ ko fi bàyyee. xëlëf xëlëf gi murid yëpp dinañ doxu ñëw ndax ko génne waaw loolu moo indi nafi bi mhm. moo indi nafi bi kon ci mhm. lañ jëlee décision bu génne ko mhm. loolu nag eh, lu bëri xew na fa fala fala gaay ndaga xiif ga fa lañ ko booleeg moom gaay ndaga jébul loolu loolu loolu xew xew la loolu tamit lay wax ni kon nafaali xayri la xablu fi ndari bi ahli badrin usudil kadari usudil kadari waaw lépp loo xam ni lépp loo xam ni pexe la ak natt mhm. ak rey ak lu bon luñ bëggoona teg ci man ca ndar mhm. fa la ma ko suñu borom dàqale nan la ma ko dàqale bi ahli badrin waa ahlu badrin mhm. ñi nga xam ñooy usudul kadari ci waaw ay gaa yaa ngoog ñooñu la ma ko dàqale moo tax a muy génn ndar la bind xasida asiru asiru muy départ la bind xasida asiru asiru maal abrar waaw ah. <coughs> mi ngi bind asiru maal abraari ayna asiru wa dannal ida anni hunaaka asiru ba egg ci xururul wara xarran nasara bi kaydihim wa zannu zununan wa zununu xurur foofu la fa la yemale xasida gi woo ku ñuy woo ku ñuy tudde sëñ Mabé mu jox ko xasida gi ni ko lii mooy sama seede dinaa tukki dinaa ñëwaat te doo faatu te doo faatu faatu kon hmm. mooy nafaali xayrilla xablu fi ndari bi hmm. ahli badrin hmm. moo tax mu ne asiiru maal abraari xiina asiiru ndeysaan maa ñu xam ne tubaab ñi ngi jàpp ni moom prisonnier lañ jàpp waaw moom mu jàpp ni day tukki moom mu jàpp ni ci tukki bi la ne ci tukki la ne te sayru boobu nag du sayru bi xam ñun sayru ilallah la Hmm. mooy dox jëm ci yàlla dox jëm ci yàlla loolu ah. yoon la war a yóbbu ci suñu borom est-ce que moo tax sayru boobu mhm. sayru ci tasaw fi xam nga sayru ci tasaw xam nga mooy mooy dox jëm ci suñu borom dox jëm ci suñu borom te sayru boobu lay wax hmm. moo tax asiru hmm. maal abraar yi maa ngi dox ànd ak gaa yu baax yi mooy yonente bi ahlu badri xii na jamono ba nga xamante ni si ñoom ñi nga jàpp ni jamono ba nga xam maa ngi dox jëm ci borom hmm. waaye nag ñoom wa zannal ayda noonu hmm. yee ñi nga jàpp ne hunaaka asiru ñoom ñi ngi jàpp ne prisonnier lañu fekk na man maa ngi dox ànd ak jaamu gaay yàlla kay xiina hmm. asiru ilallah jamono bi may dox jëm ci borom ñoom ñu jàpp ne ab prisonnier la jëm <laughs> waaw loolu ginaas la ginaas mhm, taam ginaas bu taam ñetti mhm. a dëgg la dëgg la rafet na lool rafet na lool ci balaaxa mhm. ku toll ci yenn circonstance walaay ndeysaan di waxee noonu waaye itam xam ni day dem day dikk moo tax mun sëñ maa bi xasi dëggit garde ko ndax mooy sama seede dinaa dem dinaa dikkaat fekk def te doo faatu. loolu mhm. moo xew ndar. Mhm. ndar googu nag fa lañ ko jëlee nag. dugal mhm. ko saxaar moom la. dañ ko jëlee foofu jëm seeg moom ndakaaru. ndakaaru dugal ko ci saxaar dañ ko jëlee waat ndar door ko indi waat ndakaaru. door ko indi ndakaaru. ci yàlla dañ ko indee ndakaaru ndakaaru fu la war a jëlee bato pour dem. moo tax ñu indi ko ndakaaru. buñ ko indee ndakaaru nag. ndakaaru bi mu fi egsi dafa wax ni. dafa tombanteeg mu woor. Mm, ndakaaru waaw nga xam ne fi egsi timis. koo dog di waaj a jot. sëriñ bi nee na bi ñu wàccee rek xelam mooy nan lay dogoog yooyu mhm. mais nag ni mu toogee tuuti rek ci la benn ndaw ñëw ni ko ah defaral nga fee bërëb bu baax boo xam ne mën nga faa dalloo mu yaakaar dañ koo préparer fi muy nekk yooyu nekk de bërëb la boo xam ni xataay ba xat ga ak xet ga ci xat ga ak xet ga xet ga ci yooyu la boole xat ga ak xet ga maanaam doo siggi mhm. doo taxaw doo toog ci yàlla doo tëdd ah? defar ko ay pont ak lépp waajal ko dugal ko nga xam ne sëriñ bi nee na bi mu tëll di teg tànkam dañ ko daal di bëmax <laughs> loolu lay wax ne nee na bi ñu ko bëmaxee tànk bi mu njëkk a teg ràbb gi dafa sar ba génn ci kaw oh. waaye nee na ma tegaat rek ngir xam ne ràbb gi jaamu yàlla la may jaamu yàlla te bu ko yàlla déglu loolu mu jàmm ma ma jàmm du ma jàmm <laughs> waaw la tolluwaay boobu te boobu mi ngi woor te boobu mi ngi woor nee na saa mu tàbbi foofu rek nee na bi mu tàbbee foofu rek oh. si saase rek mm-hmm. dafa daal di kàbbar julli ñaar julli ñaar yoo xam ne mi ngi ko jullee saar yu gudd bi sax raawaani la wax hmm? rakk bi njëkk mi ngi ko jullee bàqara rakam ñaari Ali Imran Ali Imran waaw salatu rak'atayn bi xam ci la ñuy béyee ci la ci la ko ci la ko ci la ko ci la ko ci la ko mi ngi jàng bàqara bu ñaari mu jàng Ali Imran ci nee na foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ko fa mhm. déy ko fa loo xam du ko nettali mhm. nee foofu soxna fekk na ko est-ce que ma koy naan euh, fekk na ko fa maam sunu maam jaara mhm. di ko ñaax ak di ko dolli ay daara ndeysaan waaw suñu saal sax nett na kon foofu la hmm. foofu tamit tartar yooyu ak dund yooyu hmm. foofu lay wax ni hmm. ida dakartu zalikal mabita waay ndeysaan wa zalikal amira wa subuta taarat ilal jihaadi bil armaahi lakin nafsi tabba anil maahi xaw na koo jar nag waaw mu ni su may fàttaliku nag ida dakartu zalikal booba su ma koy fàttaliku waaw zaalikal amira mhm. ak njiit la nga xam moo jiite woon digle bi ma loolu ah. wa subuta ak sax ga ma fa sax ah. ñaari fan ah. nee na loolu taarat ilal jihaad il day yóbbu sama xol ci ma jël ay xeej jamante taal jihaad taal jihaad waaye nag li tax du ma ko def mhm. lakin nafsi mhm. rabba anil maahi ci sama xol moo seey ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba man faletul yooyu ay yooyu talatuma ko waaw talatuma ko xaw na koo jar waaw loolu lay wax ni mhm. nafaali xayrillah fi ndakaaru mhm. bi euh, kulla mhm. adan li jarrahul makaaru makaaru bépp lor boo xam ne rek pexe tegoon na ko rek suñu borom dàqal dama ko ca ndakaaru ca ndakaaru waaw te loolu tey ku xool masaalikul jinaan waaw waaw waaw xam ne néeg ba ak fa mu doon jullee ak ponte ya wuute na ak tey lu ko metti woon de yàlla fayal na ko lu ko metti woon neex wallaahi wallaahi lu ko metti woon neex na ko lu ko metti woon neex kon mu def fi alxamis àjjuma samedi Dakar waaw kon lañ ko dugal ci gaal gi ci samedi lañ ko dugal ci gaal gi ci gaal gi war a dem ak moom Gabon waaw samedi loolu nag lu lu loolu nag lu metti la lu tar la lu metti maanaam war a tàqaloo taal Cheikh Ibra Fall bokkoon nañ ci ñi ñëwoon Cheikh Ibra bokkoon nañ ci ñëwoon fekk ko Dakar. Dakar waaw ak taalibe yu mag yi bëri ñu fekkee nañ ko fekke nañ ko si dañ ko jëlee nag dugal ko ci gaal gi. Mhm. mu tàggatoo ak taalibe yi nag. di dem te xamul fan la jëm. lay ndeysaan lay la jëm. Mhm. waaw keroog la leen wax ni. Mhm. dellu leen dellu leen. dinaa liggéeyal sama borom dellusiwaat. waaw dinaa liggéeyal sama borom dellusiwaat. te xat du damm <laughs> keroog la leen ko wax. waaw tàgg ñam doon tàggatool bokk na ci Seydou Ibra Cheikh Ibra Fall waaw ah, bokk na ci boo xoolee ci irwaa di nga gis sëñ Mouhamad Lamine di ko nett li mhm. wa jaahu fi fulkihil mashuni muriduhu mhm. ay yafatan malxuni suma raja al muridu ilal jazira bi xalbin waja ndeysaan waaw wajaa u fiirko mosi murido ay hmm. ya fatan moom xëy ndeysaan ay ya fatan moom xaw ngi tudd Sibra fekk na ko ci gaal gi wax ak moom hmm. tàggatoog moom waaye suma rajaal murido ilal jazira ndeysaan waaw nan la delloo ilal jazira hmm. bi xal bin wajaa ndeysaan xol bu jàq bu tiit bu tiis bu metti ndax bi ngi tàqale ko gi gën a bëgg ñu koy yóbbu fu mu xamul te xamul lan moo ko cay fekk ndeysaan waaw kon yàgg naag sëñ Tuubaa waaw kon yàgg naag sëñ Tuubaa allamani rahmanu fi safina léegi nag bu duggee ci gaal gi rek ci mhm. saase rek muy mhm. teg tànkam ci gaal gi la ko suñu borom xamal ni nag yow yaa liggéeykatu yonente bi dëgg dëgg nag mhm. yow la yow la yow la yaay xaadimu rasul yaay xaadimu rasul est-ce que moo tax mu ne allamani rahmanu fi safina ci gaal gi rek la ma suñu borom xamale ni nag yow bi ànd na ni naka man sëñ Tuubaa xaadimu sil madina man maay liggéeykatu yonent bi borom madina borom madina man maay liggéeykatam dëgg lay ndey sax waaw man maay liggéey ndax ba muy génn daa waxoon ni xarajte yow ma sabti saamine asar lan moo tax li xidmatil muxtaar Euh, loolu taxoon waaw ba muy génn mhm. dañu xarajtu yow ma sabti waaw Mbàkke Baari ba mu fay départ loolu la waxoon départ boo xam ne mhm. wax nañ départ ba ma waaw foofu dafa wax ni mhm. daal di wax ni xarajtu yow ma sabti naa bisub samedi kañ saa mi na asar fukki fan ak juróom ñett ngir lan li xidmatil muxtaar yi ngir liggéeyal yonente bi waaye fan fii sahri safar fii sahri safar foofu naa lu am solo mooy ah. bind fii sahri safar fii sahri safar ci weeru safar mooy bind wax naa lu am solo nit day bind suñu baa gis ne xarajtu génn naa fan yow ma sabti nga xam ne bisub samedi la saamina asan nga xam ne fukk ak juróom-ñett la mhm. la nga tax a jóg wax na la ko mhm. li xidmatil muxtaari mhm. fii sahri safar wax na la ci ban weer waaw bind am na solo de bind dafa am solo maa kutiba xarra a maa xubisa farra maa ko xubisa farra lay ndeysaan waaw luñ bind mu sax mm-hmm. luñ mokkal mu naaw lay ndeysaan waaw kon mm-hmm. Mm-hmm. loolu mu wax ni kon looloo ko tax a jóg foofu nag la ko suñu xam nag la nga doon sàkku mooy doon liggéeykat yonent bi dëgg-dëgg jox na jox garaat la de waaw garaat la xadim la jëfandikoo xam nga xaadim day liggéey laazima la waaw <laughs> mooy kii liggéey mi naan nga day liggéey bu ngooneem moom kooku moom xadim amul wàcc abad la rek xadim amul wàcc ndeysaan moo tax mu ni aqdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal muna wal minna dama koy liggéeyal bu dugg àjjana mhm. mooy xadim ci kooku amul wàcc waaw man doon na ni xayra xadimal Mustafa mhm. fa innani xadimuhu bi Mustafa ndeysaan aqdimuhu ila duxulil janna ci daaril xaraari wal muna wal minna ndeysaan ci yow barra anillahu la daa konaakiri kon départ na Dakar mhm. mu départ Dakar. Mhm. nee na dem bay toll ba toll Conakry. Mhm. nee na ci la benn sénégalais dugg ci gaal gi. Hmm? benn sénégalais. Mhm. boo xam ne ab saalum saalum la. ndeysaan dugg ci gaal gi ziare sëriñ bi. ba ko ziaree jox ko ay addiya. ne ko man kat damaa dégg ne dañ lay yóbbu Gabon suñu tubaab nee na baatu Gabon foofu la ko njëkk a dégg. baatu Gabon waaw foofu la xamee ne Gabon lañ koy yóbbu. foofu la xamee damaa dégg ne kat yow dañ laa jàpp di la yóbbu Gabon ma ne naa profité ziare la. nee la ko ziaree ñaan loo ko ni ko dénk sëñ Tuubaa nee na man li ma ko dénk mooy dama ne ko laa ilaha illallah hmm. muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu rek laa ko dénk ah? waaw neen ni ko laa ilaha illallah mooy lan hmm. mooy képp koo xam ni hmm. jaamu nga leneen lu dul yàlla sa taalamu annahu laa ilaha illallah bis dina dem nga xam ne yàlla rek yàlla rek mooy yàlla ah? ne ko Muhammadu Rasulullah mooy lan mm-hmm. mooy képp koo xam ne jàpp nga keneen mm. ku dul yonente bi sallallahu mm. nga xam ne annahu Muhammadu Rasulullah Sëñ Tuubaa moo waxu ñoom lay wax ni hëdiyati safar la daa konaakiri ah. moom li mu wax li mu jox sama addi ji na ca konaakiri bokkul ak di ko waaji jox bokkul ak di ko waaji jox waaye li mu dénk waaji moom la def addiya mooy ne ko xamal ni laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ni ku jaamu keneen ku dul yàlla mm-hmm. di nga xam ni kat mm-hmm. bis dina ñëw nga xam ne annahu la de waaye ku topp keneen ku dul yonent salaam mm-hmm. bis dina ñëw nga xam ne annahu muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amul amul werante de loolu la dénk waaji jàmbaar jànga Tuuba la <laughs> dénk waaji ndeysaan waaw loolu nag moo tax mu ni baral anillahu la daa konaakuri mhm. min kulli jalibin ilal manaakir walaay ndeysaan ma yóbbu ci luñ sibag lu araam ak yëpp mhm. mhm. konaakiri la ma ko suñu borom dàqale Conakry la moom suñu borom dàqal kon mu jóge Conakry dem continuer continuer dem nañ Côte d'Ivoire mooy Garambassa Garambassa azhaba anni llahu inda Garambassa fii Garambassa xablu mu baari anni xalbasa foofu li tax mu wax bayit boobu mooy suñu baa dafa wax ni ci biir gaal gi mhm. dañ koo tegoon ci place bu confort bu dal mu mën ah. faa ne di bind di def yëpp waaye neen dafa mel ni rek ki taxoo ki waxoon ñu génne ko dafa jekk man dafa jox waaj am not rek mhm. waaj changé kanam doonte waaj ko baaxoon la ci mu ko war gaawantu génne ko bagage yóbbu ko ci fu bon mm. waaw génne bagage yëpp loolu am am na fu mu koy wax sa ni mm. wa ax rajo nii wala mataaxu mm. wal mataaxu mm-hmm. waaw wa ax rajo nii wal mataaxu fii mawdi ayn surtout fi kalma yit ci la ilaha illallah ilaa maaw dane surtout fii kalma yiti waaw ah. nee na mm-hmm. dañ maa génn génn samay bagage yóbbu ma ci bërëb boo xam ne mm-hmm. tumuraanke ma tumuraanke naa fa ma mel ni ku dee waaw da mel ni am néew tumuraanke ak wéet ak salte ba ak xat-xat ba mm-hmm. ci biir gaal gi ci yàlla waaye nee na dañuy def rek fa mu toog ku ñëw rek yow xamoon nañ lii dina la daal yaay Ahmadou Bamba xamoon nañ lii dina la daal da ngaa kii xamoon nañ lii nangam ak nangam mais am na ku ñëw nag koo xam ne moom ku ñàkk kersa koo xam ne mm. dafa ñëw rek mm. commencé laal bopp bi fëgg mm. da xam ne dëgër bopp da jaay na lii xamoon nañ lii de ko yëj daal di ko wax lu nekk mu koy wax lu waaye nañ ci noonu rek suñu borom dafa bañ mm-hmm. suñu borom dafa bañ nee gaal gi dafa commencé di yuux yuux koo xam ne kenn du dégg sa morom oh. kenn déggul sa morom ci loolu ñu ko def waaw Oh. nee na gaal gi noonu muy yuuxoo dañu di yuuxu di yuuxu ba egg ba ñu eggee garam Garambasa Conakry <laughs> ba Garambasa gaal gi noppi oh. nee na gaal gi nopp loolu lay wax ne adhaba anillah fii Garambasa mm-hmm. suñ borom dàq na mm-hmm. ci man ca mm-hmm. Garambasa lu mu baari ji képp koo xam da doon jéem a léewtoog man jéem a jéem a xeex ak man wala muy xuloog man mu may yéej foofu la ko suñu borom dàq mu annii xalbasa waaw annii xalbasa ñu jógee Garambasa dem Daawume Daawume léegi mooy bene Daawume la Mhm. mu ne daani yar rahimu inda daawume mhm. lahu bi ma agana anita saawume foofa mhm. daa am ndax mu wax ko nee na biñ jógee garam basa di dem daawume téere moom dafa fonk alxuraan waaw nee na miski yeeg yooyu lay génn di sotti ci alxuraan waaye nee na bu mu commencé rek tubaab bi day ñëw rek ñu ko indi moom it neen du ma ci teg baat ma jox ko mu jël sànni ci géej gi parfum yëpp mu jël sànni ci géej na li ko yéem mooy bi ñu wàccee bi ñu wàccee daaw mi maanaam ñi ñëw di ko siyaare ku ko siyaare paquet nga ko jox paquetu parfum waaw <laughs> ku ko siyaare rek paquet nga ko jox ci waaw ku ko ziyaare paquet nga ko jox. ci moom yi yóbbu de waaw mu ni mu ni moo tax mu ni. daani rahimu inda daaw. Mhm. suñu borom may na ma ca daaw me. Mhm. la xoo ma mhm. ak naa ani tasaw. ani tasaw ma ko woon a waxaale. mën ma ko woon a waxaale. mun ma ko woon a waxaale. wallaahi ndeysaan loolu a ma ko woon a waxaale. yasaril mun yasaralil muna. la daal xaaba an kulli wali. ci xam limbar wali nag solo suñ tubaab gën a yàgg. limbar wali na cey tukki bi waaw ah, faa yàgg foofu nag dañ na fa lu ne ah, dañ na fa lu ne lu ne lu ne na ko fa lay ndeysaan waaw ah, foo xam wax ak yow ku fa hmm. dem dëkk da ngay faatu limbar wali ndax la nekk fa xur ñu ko yóbboon la nekk ci tàngaay la fa nekk ci ay neñ meet dañoo defoon ku fa yóbbu da ngay faatu ndeysaan da ngay faat hmm. foofu suñ dubaa dañ na fa na ko fa wallaay waaw dëkk ci ay mbaar hmm. muy taw nekk na fa nee na di woor bu wooree ba ngoon jot mu dagg ci xobu garab yi muucu ba mu dugg ci gémmiñam mu loolu la doon doge nee foofu war na fa koor koo xam ni dem na ba koor koorite ga jot amul lu dul génn euh, kii nuñ defee amul sax loo xam ne moom lu mu mën lu mu a joxe lu mën a joxe kii mudu koor lu mu joxe mën a joxe mudum koor mhm. nga xam ne ak xasida la ko def ko muddum ko def ko muddum ko ba muy julli koor ga koor ba muy mhm. julli koor ga mhm. mi ngi julli ci am ndànd fay fay waaye mi ngi gis ñaari xale yu jigéen yoo xam bu abaree ñu taxaw reetaan ba daanu ci suuf bu su ñu reetaan ba daanu ci suuf tàppante ngir lan jàpp ne ab dof la ngir jàpp na dof loolu yëpp mi nga mi nga xëy ñu bindal mi nga xëy ay taw fekk na ko fa lu ne foofu lu ne xew na fa foofu nag lay waxee ne yasaral mun a la daal li man xaadali ma xaaba an kulli wali mhm. lan mooy a mhm. jàppandal na ma ci li mbër mhm. mi nga xam moom wommatal loo xam ne fàdd na bépp wàll loolu xam lan la nen dafaa nekk ba benn guddi koo xam ni. Mhm. xam nga weer yi bu nekkee ci digg weeru badar fukki fan ak ñeent bi day leer. day leer nañ waaw léegi nag ci terrain bi neena ci terrain bi ñoom fi ñuy entraîné fa lay dem toog di bindu di jaamu yàlla di tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Mhm. nag ci gendarme yi dañoo heure bi ñuy jóg di def seen seen seen seen seen manœuvre yi mooy di entraîné ak yooyu. Mhm. leer gi moo leen jaay ba ñu jàpp ne dafa dafa def asamaan seen ne guddi la ah. léegi biñ génnee def seen euh, manœuvre yi rang seen rang yooyu dem def seen sport yi tàggat yi hmm. dañ koo fekk mu toog ci jaay mais ñoom seen bopp suñu hmm. borom da leen wan ne Sëñ Tuubaa ni mu toogee hmm. di bind ka jaamu yàlla am na lu ko wër ay fas yu ko wër yoo xam ne war seen kaw war seen kaw ko gisee nag ñu tiit nga xam ne na ki leen jiite dañ leen arrière leen ndànk ñuy arrière di bu duggaat ci kanam nga xam nee na da leen a sax ni leen lii ñu gis boo kenn nettali waaw bu ko kenn nettali loolu la sëriñ bi wax ne dem nañ ba yàgg moom mu ñëwaat moom commandant bi hmm. di ko laaj ni ko ndax yow daa am ñoo xam tey buñ la doon bëgg a rey na mu rek waaw lii yëpp boo demee ci irwa di fekk di fekk Lamine ko nekk ndeysaan tabarkal nee mel ne nee mel ne ku xamul lu xew rek naan ko ñooñ ñan la ñooñ ñan la ñooñu nag lay wax ni hmm. Euh, moom lay wax ni li muy wax ni maaxaaba an kulli wal mooy li xaada ahlil badril usuda foofu suñu borom moom moom matal waa ahlu badri mhm. ñu ñëw di ma aar mhm. waaw man zahzahal waasiya mi nga xam ki ma dàqal saytaane yi wal xasuda ak kikaaj mhm. yaquudu li xaysu akunu allahu tabsiran laa fu ma mën a nekk rek mbégum laa ilaha illa allah la ma suñu borom di womat ndeysaan moo tax dem na ba jóge ci tukki bi ba ñëw jaareem euh, euh, murid yi di ko laaj ñooñu ndax ahlu mu ne leen waa ahlu badri lañu woon waaw mhm. mu ko nit ñi la wala malaaka yi mu ni malaaka yi mu ni malaaka ko ndax jibril bokk na ci mu ni mooy seen jiit oh. waaw <laughs> moo tax yàqoodu lii uh-huh. man xaat lii bi ahla badrin usuda uh-huh. suñu borom moom wa matal ahlu uh-huh. badrin kon loolu foofu la foofu la xewe foofu la xewe foofu la léegi nag saaxali xayrillah fi maa yomba maa saaxal bi daa mel ni waxtu wi jeex na waaye mën nañoo yem ci bayit bi ñu yem ci bayit boobu waaw waaw saaxali xayrillah ndax ginnaaw li mbërool ak maa mooy bërëb yi mu gën a yàgg waaw ah, mooy bërëb yi mu gën a yàgg gën a yàgg kon nañ maa yomba li tax muy wax saaxali xayrillah fi maa yomba maa saaxal bi alal jën ba loolu histoire dafa da da doon da doon samp ay bant hmm. ñeenti bant yoo xam moom la defoon jàkkaam ah. di ci julli mhm. waaye saa yu ko sampee rek dañuy hmm. ñëw euh, dañuy ñëw sempi sempi ko mhm. naan ko lii xaju fekk dangay xatal ni sa yëf dafa mi da bàyyi ko waaw mhm. sànni ko nee na am ko ku ñu tuddee na muy xuloo nee xuloo naag waa ji bant yi tisbaar ba timis waaye sëñ Tuubaa nee na mbég foofu ndax juróomi at yi foofu dégg kuy wax olof waaw ku waa xuloo naag moom ba timis waaw ci lu tax waroo def lii kii deful jotewul ak yow da koy def ngir jaamu yàlla mag yooyu ci waaw nee foofu nag mhm. bi ñuy wax rek moom ci la ci rek daal way génn xasida goo xam ne mi ngi mi ngi ko tuddee mi ngi ko tënkee euh, rabbana axrajna min haazihil qaryati zaalimi ahluhaa wallaay ndeysaan moom la ko tënkee wallaay ah? la ko tënkee moom la ko tënkee mooy raditu anil mawla taala lisi rabba fuaadi wa axnaani akrim bihi rabba ci raditu anil mawla taala ربا فادي وأغناني وأكرمني ربا moom moom xasida googu keroog la ko way waaw ah, foofu ci Maayomba nee na ba ñu sempee bandi xuloo beeg yooyu laa dellu ci borom di ñaan suñu borom mu génne ma ci mhm. mu génne ma ci mhm. la ko daal di xamale ne di am ñaari jumaa jumaa Njaare ci biir xasida biir xasida gi la su ko da nga am ba mu avant xas dëgg suñu borom nee na ko sa ñaan bi nangu na mm-hmm. sa mant yi ñu seen mm-hmm. da am ñaari jumaa yu kenn du seen loolu lay wax nii ni saaxa li xayrillah fi maa yomba ah. suñu borom dàq na li nga xam ni mm-hmm. moo naqare woon sama xol ci maa yomba kan la dàq maa saa xal bi naqare woon sama xol lu tax mu àllal jën ma ñaari ñaari kii yee dina kar mooy jumaay njaari ak jumaay mooy mooy junj ba mooy junj ba ba mooy jumaay njaari ak jumaay tuba ndeysaan moo tax nee dem na ba jëmm jamono mhm. sëñ Mouhamadou Lamine dafay nekk ci Irwa nee na dem nañ ba jëmm jamono yéeli mhm. sëñ ñëwaat njaari di siyaar ci sëñ tuba ndeysaan waaw 1924 fekk mhm. jumaa na man la ko sëñ tuba ak keneen ni ma ni ma yóbbu leen mu visité mu visité mu visité mu visité jumaa ji jumaa ji waaw mu visité ba mu jeex mu ñëw Sëñ Tuubaa ne ko lii de xanaa wut naag banteen doon seet banteen doon seet mu daan yéele say ne ko yu moom kenn mënu koo dana reetaan loolu ndeysaan loolu mooy saaxal xayri laa fi ndeysaan ndeysaan waaye tabarkalla ma sa xal bi wax ne la lii moom lii moom ku dul Sëñ Tuubaa mën a sëriñ bi la mhm. moo euh, am na solo euh, kaddu yi am na solo ñiy déglu ñëpp xam nañ ni jariñu nañ wax dëgg yàlla te xasida gi nag mhm. dañ koy topp koy topp day am suite de dañ koy topp ba bu soobee mm-hmm. ndax daal li nga wax rek jaloore daal mm-hmm. borom a koy nettalil boppam te lii sëñ Tuubaa moo koy nettalil mm-hmm. boppam kon mbokk yi nga xam ne yéen yéen ñuy seetaan fii ci euh, bu mag bii di Tacko TV nii lañ koy defee incha allah diiran safar gi yëpp bu soobee yàlla dinañ leen ci toppal xasida bopp ba génn incha allah ndax bii kat bu jeexee bëgg nañu waxtaanee tuxfa mi nga xam ne moom laay dàkkantalee waa ji toog di imaamul akbar nga xam ne bëgg naa ñu waxtaanee lan mooy tuxfa bala ñoo dem Touba incha allah kon dañ koy bàyyi moom mu tàggoo bu ko defee manit ma ñu joxante rendez-vous incha allah ba beneen yoon alimaam waaw xam naa ne temps bi moo ñu a xoj waaye nga tàggoo rek waaw yi dox bi tàggoo tàggoo tàggoo xam ne dinañ di rafetlu mhm. di gërëm waat Tacko TV yëpp mhm, mhm. si yitte yi ngeen jox bis parce que bis yu mel ni lii moo ci am solo mooy nit ñi xam fan la ñuy taxaw. Mhm. xam li leen tax a jóg lan la. Mhm. Mhm. xam mbir mi lan mooy lan mooy waaw a taarix jàng lay jëriñ. waaw taarix jàng lay jëriñ yenn sallallahu wax dama lay nettali. ay xese da koy nettali ngir mu xam. ngir mu xam. waaw sabitu bi foo aade ko. mooy ngir lan nga mën a dalal sa xel. xam lu xew rek xewoon na. lu xew laa tudd la. xewit la lu xew xewoon na yooyu dafa am solo. te it waxtaane Sëñ Tuubaa li am solo mooy ñu waxtaane mbindam. waxtaane waxi boppam. waaw ndaw wax na lépp mhm. waaw dafa wax ni jëf naa ngeen gis moo mhm. wax ngeen dégg ma mhm. bind bàyyi kon kooku wàcc na kon wàcc na kon yàlla nañ màggal ci jàmm amiin yaa rabbal aalamiin yàgg koo màggal at yu bëri li tax ñuy màggal ñu dajatee moom mooy sant suñu borom dajatee ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala wa ridwaanallaahi akbar amiin waay asalaamaaleykum wa rahmatullaah jërëjëf al imaamul akbar euh, yàlla barkeel xam-xam bi leer na euh, te li nga wax it ko dégg xam ni ci xam-xam nga ko teg ndaxte lu ci nekk di ñu indi taarixam wax ñu dat ba wax ñu la ca xew lépp loolu rek lañ soxla ci xam-xam bi mm-hmm. dafa di dafa toll jamono joo nga xam ne fii la réew mi toll mm-hmm. maanaam dafa am lu loo nga ne foog ñu leeral ko ci bopp nit ñi mm-hmm. parce que niñ gisee réew mi di doxee am na foo nga xam ne bu fa àggee du du baax te lii rek moo ñu ci mën a dimbali mooy ñu bàyyi yuuxu yi bàyyi bàyyi fipp gi te wax li nga xam ni moom la mag ñi bind bu buñ ci yemee yaakaar naan dana bari ñu ñu doon dal te danañ taxaw ndax mag ñi liñ bind dara génn ci yàlla ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku dégg kii li mu wax ci ci sëñ Tuubaa ak dénk na dénkaane gëm dénkoon ka ko dëkkaloon ca biir gaal ga nga xam ne dénk ko fa ku dul ñaar te mooy yàlla ak yonente bi dong mm-hmm. kon ñu xam ne sëñ Tuubaa mbiram lenn ci génnul yàlla ak yonente bi mm-hmm. kon ñi ko bëgg a génnee yàlla ak yonente bi ah dafa fekk ni dañoo déggul waxi sëñ Tuubaa mm-hmm. da dem da ngeen a bëgg a dégg waxi sëñ Tuubaa nag di leen ñu toog fii ci Tacko TV incha allah diiraa màggal gi du sooba yàlla xasida bu nekk danañ ca dugg jéem caa def sëñ kamtulayil kàttan ba wax li ci sëñ bi namu incha allah ñuy ñaan yàlla ngeen dooyee ñu fekkee màggal gi ak jàmm yàlla na yàlla jàppandal lépp lu jëm ci màggal gi bernde yàlla na jàppandi ah dem bi yàlla na yomb yàlla def ko muy dem mu sedd ñëpp dellusiwaat ci jàmm incha allah yàlla may ñu màggal màggal gu sedd guy ci barkeb sayduna muhammad kon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah màggalug jàmm ليصرف كوز القوم والتسقني بها ووسع من مصر يا ربي والغبار